asalaamaaleykum askan wi ñu bàyyi xel ci seen bu am solo bi di sunugal 24 euh, point net sunugal 24 point net del soit seen jotaay bu am solo bi lee di seen jotaay xalima bu ñëw mbokk yi xalima bu ñëw del soit fii tey ci diwaanu Parcelles Assainies unité 10 fekk si fi tey euh, sëriñ Mouhamed Gaye tabarkàlla di ko santaat beneen yoon sëriñ Mouhamed Gaye balaa ñoo def dara rek ñu ngi lay wax asalaamualeykum <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alxalqi sayidna mawlana muhammad ibn abdullah salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu an cheikhna sayid ahmad tijaani chérif radiallahu taala anhu az muntaxa ñi ngi lay nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu mbokki jullit yëpp fu mën a nekk ci àdduna bi di ñaan yàlla at mu bees mi ñu dugg muy tam ñu dugg ak bisimillahi rahmaani rahim génn ko ak alhamdulilahi rabbil alamin ni at mi beesee yàlla na ko yàlla beesalee gëm yàlla gi yàlla na ko yàlla beesalee yàlla na ko beesalee sutura yi yàlla na lépp lu mu ci bind ci ay jafe-jafe ci cinq jours yooyu yàlla nañ ci yàlla musal ci barke Seydina Mohamed lu lum ci bind ci ay xéewal ak sutura ak naataange yàlla nañ ci jot ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allahu taala jërëjëf sëriñ Mouhamed Gaye mbokk yi mu mel koy waxee xëy na ni ma koy rek ni jotam bariwul. Mm. xëy na amaana ni mu koy xëy tamit euh, jaasu ne itam yaa ngi génn tamit ci sous région bi fas yéene di dimbalanteeg jaamu yàlla yi. Mm-hmm. waaye tey nag ñu ñëw dellusiwaat tey ci jotaay xalima bu ñëw. Mm-hmm. tey bu ma doon laaj tey xëy na amaana. Mm-hmm. Euh, ñun nii nga xam ne jot nañ la miin waaye ñi nga xam ne jotagun la miin. tey bu ñu doon laaj tey kan mooy Cheikh Mouhamed Gaye ak fan la euh, donnoo li nga xam ne moo di ñaan yàlla. tey loolu ñuy tontu. tabaarakallaahu Mouhamed xam naa ne tabaarakallaahu question la boo xam ne dina neex a tontu ndax it jaam la boo xam ne ku doyadi ci waxin waaye bëgg yërmande yàlla lool waaw bëgg yërmande yàlla en tout yaakaar ko moo tax it tabaarakallaahu du Mouhamed di nit koo xam ne parce que wax nga baatu doon waaye jàngit am na ndax dañoo jàngi waaw dañoo jàngi ci àll bi def ko kaw la 15 ans ban fa jógee nit yàlla bu nu gis yow comp nañ ci suñu wërsëg la nga xama ko su new boo ñu xamadul lépp it nga xamal ñu ci lu bari mm. tabaarakallaahu kon moo loolu mooy ak tërbiya ci loolu lañ nekk ba léegi nag jógaguñ ci bis buñ gisee ku ñu raw nangu nañ ñun ku ñu raw waaw te incha allahu taala danañ sàkku xam-xam ci yow. alhamdulilah <laughs> alhamdulilah. jërëjëf sëriñ Mouhamed Dieng yaakaar naa leeral boobu am na solo ñu dugg nañ ci bunt li nga xam ne moo di euh, mm-hmm. ñaan yàlla. Mm-hmm. ñaan yàlla. Mm-hmm. daanaka ñu koy wootee bari na ci jamono. waaye li ci bari bari gis nañu résultat ya. li ci bëri bëri dañoo dem ba jàpp ni sax dañuy tàmbale doy dal ñaan. lu ko waral mooy xëy na fi ñu làmb bunt ñuy fëgg. foofee fëgg dafa mel ni. Euh, du foofee war a fëgg. tey kan moo war a ñaan. Mm-hmm. ñaankat naka la war a mel. Mm-hmm. ak ki nga xam tamit moo ngi dem di wuti ñaan. Mm-hmm. naka la war a comporter. tabaarakallaahu ñaan bunti yërmale la ci bunt yàlla yi ndax yónent yàlla Muhammad sax bi ko yàlla yónni dana ko maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina dama laa yónni pour nga yërmandey mbindeef yi yërmande googu noonu moom mooy moo fi indi ñaan ndax yàlla su ko neexoon def li muy def ba pare ne bu ma kenn ñaan ndax doomu aadama mi yàlla bind sax da koy def léeg waaye def koo def moom yàlla ba pare daal leen nag lu ngeen gis ci neexu leen seen dund gi su ngeen ma ñaanee man yàlla ma may leen ñu di ko ci ñaan ñaan googu nag nit ki itam war koo def ca teg ko ci lu baax teg ko ci li nga xam ne moom la xam nit ñun ñu faral léeg-léeg nga dégg koo xam ne ni da ngay dégg mu naan nii ak nii ñun duñu contesté kenn nangul nañ ñëpp waaye ñun li ñu xam mooy alxuraan lañ jàng tur yàlla lañ jàng moom lañuy liggéey ñiy jëflanteeg nit ñi itam ku ci mën di amit moom ku mun di nekkit na nga xam ne li ngay def yàllaa ciy ànd ñun duñu garantil kenn dara ñun garanti wuñ. waaw ñiy jéggaane daanaka dañuy bàyyi réew dem ba bitim réew. ku ciy jéggaane itam fu mën di dem ñun liñ aman am mooy conseil leen mooy ñu lu baax ndax léeg-léeg nga gis ci sox koo xam ne day dem ba jëlee ci tolof tolof yoo xam ne réew mi mu dëkk sax dutuñ ko fa mën a fajee ndax bitim réew la ko loolu dalee woon ca foofu amatu doole dem fa. réew moo xam ne dangay ngay alal dem fa dépassé alal ñu defal li ñu lay defal te boo ci jëlee problème foo koy waxee nit ki daal dafa war a baax di wut lu baax di defar wut lu koy jëmee kanam lépp luy gàllankoor doomu aadama nga teg ko fee waaw nit ñi ñoo dematul ci sëriñ nañ fay demee sëriñ si tam léeg-léeg nga dem ci nit fekk ko du toog na sëriñ war a toogee problème bi ci ñaar ñëpp la. ñaar ñëpp la. léegi lan solution bi. solution bi mooy ñu delluwaat ci li yàlla waxoon. yàlla nee na du ma changé dara ci yéen dara bi yéen da ngeen changé a allaha laa yughayyiru maa bi xawmin xataa yughayyiru maa bi anfusihim maa ngi lay wax keroog ne la benn borom xam dañ koo laaj ne ko jamono ji crise bii ni nga ma laaj ne dañ ko koo laaj ne ko lan moo tax jamono bi dikk ba toll fii dema dem ba nga xam ne nit ki xel mi yor sax mënatu koo jariñ am ay teggin jariñatu dara ñongal sa alal sax mënatut a ñokk sa der sax mënatut a kii képp koo mën di gis ci àdduna nag fi ne benn callambeer mën naa ñëw rek muy benn image bu bon ñu taqal la ko wala ñu jiiñ la ko rek mu yàq sa àdduna yëpp bi mu ko laajee dana tax xayiru naasi ama kuntu ahdaahu moo tax fal yow mu laa adabu yux nii wala fatanu lim ñu jural mooy alxeyru mun xabitun wa sarru mun basitun wa jaxlu mun tasirun wal ilmu moom mun fa nidu nee na dafa dem a dem ba nit ñi aw yiw léegi dañ ko jël téye denc ko fi mu toll nit ki waxal nit lu baax sax dafa jafe ci moom waaw defal ko lu baax waxi noppi bu ko defee itam loolu lépp li ko indi mooy lépp lépp li ñu yàlla tegoon sant ñu ko moom lañ bàyyi. Mhm. waaye jaam bi dafa war a doon jaam. lu muy def itam mu fexe ba am ci xam-xam bu wér bu dee day ñaan xëyrun léeg-léeg nit di ma wax ma ne ko ñaan ñëpp ko war a def léeg-léeg ñëw naa ma ndax ñaan ma ne ko ñaan ñëpp ko war a def. xanaa kay da ngay da ngay tële wala sax jot mayu ko nga dem seeti keneen ku yàlla mu gën a may mu gën laa mu ñaanal la incha allahu taala waaye gis nga ñaan moom. tabaarakallaahu moo fi nekk bi fi jaam bi ñëw ñëwgut moom lañ doon ñëw yàlla ñëw yàlla na nga dund ba am borom kër yàlla na nga dund ba am ku ni say imaar mu sëy nga ñëwati àdduna ñaan gunge la ba nga génn àdduna ñi di la ñaanal yàlla yërmande yàlla ñaan ak doomu aadama mënuñoo tàqalikoo moo tax tout le temps li nga gis ku toog naan dafa découragé mi yàgg-yàgg day jugaat nit boo amee jafe-jafe yàlla nee na demal mm-hmm. am na ñoo xam ne ni wàcc naan ci àdduna kenn ku ne ma jox la aw laf waaw yàlla du defal nit lu man yàlla du buddil kenn ñax yàlla du roñal kenn ngooñam waaye li nga mënut nag mooy ñetti tool wala ñeent mu tawal la ci benn waxtu moom mënu munoo ko de mënal na la ko mën na la indil naaj bu muusal gerte gi su ñoree wala jiw wi ba nga xam ne sax yi duñ ko mën a lekk mën na la indi ngelaw loo beesee mën na la ñoralal mën na la màggalal mais nag leneen la ca des yaa koy defal sa bopp nit boo amee soxla da ngay jóg ca soxla ba nga dem waxtaan ci ak ku la tane ci yàlla lam ca man mu defal la incha allahu taala la jërëjëf sëñ Mouhamed Gaye ci leeral yu am solo yooyu ñu daal di ñëw nag ci wàllu ngóor muy ñëw kattan <laughs> mhm. euh, nga nekkoon ci ay jamono doon ci def ay ay jaloore ci mhm. def ay jaloore sëñ mhm. euh, Mouhamed balaa ma tàmbale ndax ci ñi ngay faral di traité kii néew kattan ndax dafa bëri façon euh, ban anam nga gën a seetlu que néew kattan bi foofu la ëppee maanaam wàllu woowu ndax dafa bëri façon waaw li tax li li gën a bari soo ko seetee sax fi ne jamono ji xale yi ñoo koy jàmbat te loolu boo ko gisee yéenuwul maanaa yenn wul maanaam ndax tey jii mag sax moo ko daan jàng jàmbat dem ba am yenn at yi wàññeeku ngay jël yenn garab yi waaye xale bu ndaw boo xam ne ne bërit commencé di jël ay garab yi a parce que loolu ñàkk wér la ñàkk wér a koy def en tout cas caaxaan gi bari na léegi foom yi bari na léegi waaye lu mu ci mën di am it incha allahu taala mag ñi bàyyi woon nañ fi ay tegtal ak ay garab yoo xam ne ku ki ko ci jël di ko def na ko war a defee yàlla mun naa def incha allahu taala doo deyaaleeg feebar ngóor a doo daali feebar ngóor te en tout cas dina mel ni mu war mel ndax nit ñi boo ko seetee fi mu toll nii feebal bi na am na ñoo xam ne dañoo mënoon ba mënatuñu am koo xam ne ni darul yàgg dara mu daanu am koo xam ne ni tabaarakallaahu moom loolu lépp sax faru ci jaar te loolu li boo ko seetee siddit yu feebar yu nekk ci naq doomu aadama ji dana ko waral léegi nag am na garab yoo xam ne boo ko jëlee mën na ko raxas ba mu set nga def incha allahu taala bu ci yàlla defee suturaam ñun nag lu ñu mën di defal doomu aadama yi yàlla lay bàyyee yàlla moom mooy def tabarkalla aha incha allahu taala dañoo xam ne ñu daal di ñëw ci mhm. nga xam ne tey dafa nekk maanaam tukki nekk ci ay jafe-jafe mhm. euh, wa ilaa moo xam ne tamit ay mbiram mhm. tàmbali di jaxasoo di dëgër koy gis da nga xam ne dañuy dem ba soog a egg mbir mi di tàmbale doog a remarqué ne affaire yi ah, tàmbale na xam nga lu koy loolu lu koy gën a waral mooy ñaare fii la ñuy jëlee problème yi yóbbu ko ñu bari seen i problème dañ ko transféré da ngay ne fii di lijjanti muy dëgër tukki mi dong balaa sotti ku ne dina ci jàpp léegi nga war a am xel na yow lii bu la arrivé fa nga jëm nooy def mais doo am xel moom dangay ngay mbëkk di mbëkk di mbëkk ba jàll boo demee ba foofa nag li woon fii du fee ndax fii tey jii mën ngaa xëy war fukki dëkk fenn fu ne nga fekk fa waaju baax mu de ba jàppale la ca la man fee nag amut loolu bu ko defee ne ko nit ñi di bàyyi xel mbir mi gën naa question bi war naa mën a gën a sax yaatu tukki ba ci nit ci réew mi nga xam ne tey jii da gis koo xam ne fu ne dafay dóor bopp bi muy dëgër te loolu lépp bàyyi la fi mag ñi bàyyi woon la gis nga weer wi ñu dugg muy tamxarit gi muharram am na secret bu doy waar boo xam ne nii tabaarakallaahu dinaa la ko baax ngir yàlla coono bi ngeen def ngir jël si xam-xam bi ndax baatu muharram fi mu ne soo ko seetee mu ngi lay jox 280 288 miim 40 la xaagi 8 la raagi 200 la waaw geneen miim nga 40 la nga jël ñaari miim yi 80 nga jël xaaga 8 muy 88 nga jël raaga 200 muy 288 soo ko génnee ci 365 jours yi 71 jours mooy des 71 mooy yooyu soo ci génnee maanaam juróom-ñaari fan yi semaine bi muy lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche génne ci 30 jours génne ci 12 mois yi muharram safar rabiu awal rabiu saani jumaadu ula jumaadu saani rajab saxbaan ramadan sawal sil xeexdati sil xijjati muy fukki weer yi ak ñaar xam ga lan mooy des 28 28 boobu mooy xuruufi ijaay di abajada xuruf yooyu moo dox mag ñi tudde ko xadadul xalaayixi amul kum man di doon ngay bind turam muy tubaab muy anglais muy espagnol muy kum man di doon tur wa du génn vingt 28 xaraf yooyu moo tax mën nga am relation ci kenn ku nekk waaye boobu li ilaa fi xoree si ngay bind 71 ba rek ngay jël moo tax léeg-léeg nga gis ko ci téere yi mais doo xam naka la fekk nag dalay wax ne la après boo manee nga liggéey li ilaa fi xoree si 65 fois 365 boobu fekk 365 boobu 365 jours yi la ci jublu mais nag ku la ko tojal nii ba nga xam ne da ngay xam 71 bi xam li ci génn xam li ci génn mooy xaw a jafe mais képp koo xam ne da nga koy def at moo dugg day gàccal at mi weesu ci yow. macha allah koy bàyyi xel bu baax a baax. ak it ku ko sampee barab. barab ba dana taxaw ca en tout cas itam kenn du si mën dara. alhamdulilah incha allahu taala loolu moom may nañ la ko moom. tabarkalla incha allah kii xam naa ci mujjantil mooy mhm. si laaj balaa rek ñuy tàggatoo. Mhm. Euh, mooy kii nga xamante ni mhm. maanaam ci wàllum kaaraange dama lépp lépp mu doon. ak xamante ni dañ naan la ci wàllu kaaraange. dañ koy dafa baax ci bépp wàll. nga mën kee taxawu. léegi da ngay dem ba ma seeti. fekk boobu waroon ngaa. ngaa jëloon say matuwaay. waaw tabaarakallaahu kaaraange lu baax la ca jëru limité du doy ndax loo gis ñu koy limité ci kaaraange rek nit ki mën na ko ñàkk am muy yenn xeet yi ay tulak ay nangam ak yooyu ku bëgg a xeex a koy def waaye nit koo xam ne bëgg nga avancé dem ca kanam doo tal a xeex bay tul am na yoo xam ne moo gën tul fuuf muy kaaraange yoo xam ni coow ak i problème ñaaree doo ko fekki ba tey bokk nit ki mën nga wut kaaraange ci lépp lu mën di doon ci wàllu kaso surtout jamono ji nga xam ne fi mu toll nii call mber rek mën na ñëw yóbbu la ci ci benn wax benn jiiñ balaa ñoo xam yow laaj bi yow sëñ bi fekk yegg nga bu yàgg koy bàyyi xel léegi-léegi nga gis koo xam ne nii sax li koy dal sax ci wàllu liggéey dañ koo liggéey mais du xam kan la fekk dafa daje koo xam ne nii maanaam kim kin doon liggéey dafa bokk ak moom tur benn Mouhamed Gaye moo dem luubal alali jàmbur fee ñu di ko yóbbu ci sëriñ si di ko yóbbu Casamance ak Malick fu ne di ko fa yóbbu kooku lu mu gañe da koy dellawaat ci boppam ñam bokkal tur nag ñooy am problème. ñooy am problème. bés bi na nga gis dem sëriñ mu ne dañ laa liggéey doo ko te bu la defaree affaire toj liggéey gis résultat bi kon nga xam ne amoon na yaa ko ko nit ñi bàyyi xel. nit da ngay fooglu. tey jóg ci sa bopp ba dara du dara. boo tegee dara balaa ko ñëpp am soxla fekk nga def ci liñ ci war a def ba buñ ci amee soxla fekk pare nga ci ci njaboot gi itam noonu ndax da ngay koo xam ne day am doom bu jigéen wala doom bu góor toog di seetaan di seetaan di seetaan ba nga xam ne du ci def ci moom dara ba tekki ñëw mu tekki ñeneen aaki ko macha allah fekk loolu lépp tabarakallah maam bàyyi woon na ko fi muy ay xam-xam yoo xam ne mu ngi ci alquran mi ngi ci tegtalu garab yi tabarakallahu lépp incha allahu taala euh, sëñ mu mel ni suñuy tàggatoo mel ni saa su ne ngay baaxee am loo xam ne mm-hmm. xëy na du ñàkk euh, ab yóbbal boo xam ne da leen koy baaxee mm-hmm. euh, lan ngay tàggatoo ginnaaw si rek balaa ngay tàggatoo loolu mm-hmm. ni loolu looy li ñu leen di yóbbalee mooy comme mayee ko comme xaddi yi ndax jamono xam-xam daf ko laaj joxoon nañ la léegi benn waaye dañ lay dolliwaat beneen boo xam ne juróom-ñaari aay alquran lay doon juróom-ñaari aay yooyu boo ko boolee juróom-ñaari garab wallahi lu bari mën na ko jëruñ sax ñu nekk fi naan lii ak lii ak lii képp koo xam ne say mbir daf la jaaxal mu dëgër wala boo nga nekk koo xam ne da ngay lu bis bu nekk te doo gis avancement wala ngay samp dara loo teg mu daanu wala nga toll ci sëy te mënoo am borom kër wala nga toll ci takk soxna te mënoo am loo loo fa joxe yooyu yëpp ak tëju la tëju nag ak umu benn la nit ki problème boo mën di am bu dakkut da ngay dem ba tëju waaw yàlla nañ ci yàlla musal waaye nit ki dafa war a ubbeeku nit dafa war a am bayre nit bu amee xel di xalaat ni amul kenn koo xam ne day teg dara di ci def dërëm di ci dàq fitin dërëm boo dugal ñaar dërëm nga ciy dàq kon lan moo tax du dem mooy problème bi moo si nekk mais daal war a fax naaw makaanan aliyan in xaadar risquna maaloo min nafaadin alladi atxamahu min juhin wa amanahu min xawfin wa yansuraka allahu nasran asisan fii jiidiha hablu min masadin wa azin fi naasi bil xaji yaatuka rijal wa ala kulli daamirin yaatuna min kulli fajjin amiqin ak wala wal fatxu wa raayta naas yadxuluna fi dinillahi afwaajan juróom-ñaari aaya jeex nga boole ko wa sosoor garab gu am solo mag ñi buñ ko daan jënd dañu ko naan was wasoor tuddoo was wasoor wut wërsëg nga tudd wërsëg wi nga wërsëgal naaru góor ba ku ko gis xoolaat ko ak wërsëg wi nga wërsëgal jongam ba ku ko gis ba ko gis topp ko loolu la ñuy wut ak ñax gi ñuy wax berwéer ngel berwéer ngel pël la am na ñu koy wax timin timin soose yi ñoo koy wax timin timin séeréer si di ko wax gin soppet olof di ko wax maj-maj waaw loolu lépp yenn xeet bi la mooy berwéer ngel bi ak new ak garab gi ñuy wax màdd ak garab gi ñuy wax santang ak garab gi ñuy wax mbul ak garab gi ñuy wax palpalu dugub garab yii ngay gis nii benn bu ci nekk symbole bu la ko waxoon tey bu fekkoon émission bi laaj na ko ba ma di la ko tojal garab yi rek nga di ko wut di ko sangoo beneen affaire la te sunguf lu gaaw la lu gaaw la mag ñi sëñ bi lu ne lañ ci daan def te ñun dañuy bind alxuraan boole ko ak moom moo tax it ñi ngi sant yàlla ci ñi ñuy jëflanteel ñi li ñuy sant bëri na lool ku fi ñëw yàlla yàlla boole la ci ñi ngi ñaan yàlla Sénégal yàlla wàcc fi jàmm élection yàlla def ci jàmm waaw ak bitim réew it fu mën di doon fu jullit nekk ci rawatina Sénégal yi fu mu nekk ci àdduna bi yàlla na yàlla fekk ko fa mu xettali ko boppam jafe-jafe yi bëri na ñun fu ne la ñuy wooyee lu ne lañ ñuy wax waaye nag lañ leen di wax rek mooy bàyyi nañ leen ak yàlla yàlla moom mooy ki nga xam ne incha allahu taala ku bëri yërmande la ko baax la yàlla na yàlla fayal ñu boppam ñun mënuñu koo fay waaye lim ñu defal moom yàlla defal ko nit nit mënu ko koo fay moo tax nit ki faw muy ñaan rek yàlla fayal ko boppam dax yàlla moom rek moo mën loolu wasalaamun alal mursalin walhamdulilahi rabbil alamin mu di ko santaat beneen yoon di sëriñ Mouhamed euh, Gaye mbokk yi fekk fekk si waatoon ko fii ci diwaanu Parcelles Assainies unité 10 mbokk yi mu mel nii euh, numéro téléphone baa ngi noonu rek 77 euh, la 612 12 88 77 612 12 88 mooy numéro bi nga xam ne mooy numéro euh, WhatsApp bi. du numéro d'équipe technique waaye tamit di ko ñaan allahu buur subhanahu wa taala doole guddal fanam lool doole ko defal tawfiq ak taysir defal ko najaaxa defal ko saxat ga réen ci barke yonent defal ndam du numéro d'équipe technique bu Sunugal 24 point net ci wàllu éclairage bi caméra bi euh, Mamadou Dóor waar di ko sant bu baax ci wàllu réalisation bi montage bi euh, sëñ Aliou Top ci wàllu présentation bi ngeen ci doon ànd ak seen mbokk taalibe Mouhamadou xalima bu ñëw yàlla mi borom borom bi doon ñu defal jàmm gi nga wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala